fast track ñu gën a biral liggéey bi camion citerne caterpillar camion yu fees dell ak i pavé ay liggéeykat ñëpp di xàccandoo di dóorandoo ngir dal di soppi xar kanamu cité avion foofee fi nga xamante ni nag mooy état bu njëkk bi. ñëpp xam ne moo quartier xam ne moo moo gën bari habitant ci Wakam moo gën a te malheureusement cité avion. amul euh, benn infrastructure. ak njàppandalu mairie bu ndakaaru bile opération nag dañ ko xalaat daal di koy xalaataat mébét bi moo di ñoŋal dëkkinu ñu yeewoo ca Wakaam. kontaan na ci lool lool lool. kii nag travaux bi. carrément rafet na baax na. gis nañ ne liggéey baa ngi avancer bu baax a baax parce que entreprise bi mu ñu tegal euh, vraiment entreprise bu mucc ayib la. dañ la ñaan yow Bathily Dias nga defal ñu ko. Euh, assainissement fii ci cité avion. assainissement nag doon priorité ci farawu gox bi Abdou Aziz Guèye. assainissement du maire yi moo war a toppatoo affaire assainissement mais ñu leen seetaan di leen bàyyi nii ñu ngi si liggéey quand même avec des partenaires. gannaaw ba ñu visité yooyu les travaux nag ñaari maire yi ne am nañ yaakaar ne liggéey bi nees kii rek mu daal di pare. naam nag andi wuñ ci ay yeneen i leeral. mënuma la wax ne tel jour na pare mais incha ñu ngi nawet bi. fii yëpp dina changé parce que carrément dugg nañ te balaa ñuy bàyyi fii moom incha allah yu bari dina avancé. balaa boobee nag ñi yeewoo fi ci Wakaam yàqamti loolu lañu daal di def ngir teg gët ak xar kanamu boobule gox soxal nag maire bu ville de Dakar Barthélémy Dias liggéey yi nag ndorteel la rek ndaxte am na yeneen projet ngir fukk ak juróom-ñeenti gox yi nekk ci ville am